moo ko mos a def moo ko mos a def kuy topp kuy topp de nee kuy topp kuy topp de waaw moo ko mos a def moo ko mos a def kon nag jàpp nañ ci moom ndey ak bàyyi teese suñu doom sëñ Tuubaa rek ko mën jàpp nañ jàpp sëñ Tuubaa bu baax jàpp nañ ci moom nee na jàpp ci sëñ Tuubaa bu baax kii ngeen am kenn amu ko kii ngeen am kenn amu ko kenn amu ko sëñ bi nee sëñ Tuubaa kenn amu ko kon nag ñu ko sant bu baax El Hadj Fallou Mbacké nee sëñ Tuubaa kenn amu ko ne loolu ñun ñëpp am nañ ci nag bu baax waaw bisimilah man man lii man lii moom rek moom rek laa am lépp lu ñuy mos lu mu neex neex sopp sëriñ Touba te yàlla tax moo ko dàq. sëriñ Touba kenn sëriñ Touba kenn la de. wax naa ko te du yàq dara. nee wax naa ko te du yàq dara. waaye fa ko boroom jaarale ba ci moom. nee fa ko boroom jaarale ba ci moom. jaarale wu fa fa kenn. nee loolu tax muy kenn. nee noonu rek la demee